exposition moy woné li nga xamné mom mo euh jóge sa réew te muy meññeef muy lo xamné fofu nga ko défaré li gëna a baax ci sa réew nga woné ko bitim réew jaxassok ñi nga xamné ñom ñoo joggé ci yenen réew ci bitim réew joggé na joggé aduna wërngël képp jaxassok ñom fexé ba ñooñu tamit bu féké né dafa am lo xamné da nga leen diko wara jaay nga jaay leen ko bu féké né lo xamné dañ ko wara duggal sa réew Euh, ci mbirum investissement ñu duggal ko sa réew donc loolu euh, tey jii nii dafay bokk ci li ñu naan expo universel muy euh, ndaje bi nga xam ne moom mu ëpp dayob ci mbirum lépp lu ñu naan koom-koom ci àdduna te tey xam nga ñu ngi jóge ci mbas mi ndaje yooyu amatul woon juróomi at yu nekk la ndaje boobu di am mu dajeeg tey ji ni ñu jóge ci affaire ñu nekk ci xëy na ñu xalaat ne ñu ngi jeexal mbas mi

dafa bokk ci loo xam ne Sénégal war na ko wane bitim réew war na ko wane foofu noonu ci dubaay beneen bi tamit fene Sénégal dafa investir si lu bëri li ñu naan mobilité mooy dem dikk bi ci dem dikk bi tey jii nii euh, gis ngeen ko ci mbirum ay euh, ay ay otoraay mbirum ay ay ay roplaan ci mbirum également yëpp ay bateau yeeg yooyu port yi ak yooyu

Euh, te ndaje boobu di ci juróom juróom juróom benn weer la euh, te gëm nañ ne comme ministère yëpp bokk nañ ci agence yi yëpp bokk nañ ci dinañ ko defee anam bi nga xam ne boobu moo gën pour réew mi comme diiru juróom benn weer la du ñu ko tënk rek ci benn euh, poñ poñ rek ne lii rek la ñuy wax donc ci juróom benn weer yi dañu xool tey jii nii ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ministère bi ñu gis ne ah ministère yii Euh, kii ñii de mbirum mbirum mbirum kaaraange la ñuy nekk ñii de mbirum euh, tourisme ñii ñi ngi ci dembeek dikk bi ñii ñi ngi ci mbay ñii ñi ngi ci napp ñii ñi ngi ci xarala et cetera ku ci nekk dañ lay jël benn pàcc ñi ne ah ñii de ñaari ay bés dañ ko jagleel euh, ministère bi ministère bi nag bu ñëwee moom mooy fexe ba xarañam fexe ba génnee xarañteef boo xam ne dina ko permettre ëllëg bu dellusee lépp li nga xam ne euh, war ko jele foofu mu jele ko indi ko ci biir réew mi te mu delu ci njaboot yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir Sénégal ci secteur yooyu donc loolu moom mooy tey solo ndaje bi nga xam di nga ko war a te ASEPEX war ko organiser. xam nga tey jii ni jele jëlee euh, réew bu mel noonu nga nga jël euh, téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaari réew yu daje mooy àdduna wërngal këpp a ngi foofu ñu Euh, ku ci nekk du indi loo xam ne dafa yemamaay da ngay indi loo xam ne tey jii nii ah, bu ñu ko wanee dina neex a wane dinañ xam ne ah kii de su fekkee ne euh, Sénégal nii la mel man naa ñëw Sénégal bu fekkee ne tourist la bu fekkee ne dama war a investir ma gis que ne Sénégal ah ñii de ku fa investir dina am euh, dayo boo xam ne man tam dinaa si dinaa si gis sama bopp donc loolu dañu fexe ba ñun ñi nga xam ne tey jii nii ñooy segg lépp li nga xam ne moom mooy jógee fii pour dem fële ñu ségg ko seggin boo xam ne euh, dina génnee li nga xam ne moom moo gën fii ñu yóbbu ko fële donc loolu tey jii nii ci liggéey boobu la ñu nekk euh, ñu gis que ne euh, ministères yi tamit ak agence yi tamit d'accord nañ ak ñun ci loolu donc tamit exigence boobu ñoom tamit d'accord nañ ci ñu gis ne ah suñu ko defee laal incha allah daje boobu dinañ ci génn ak ak ak ndam